voilà euh, ki nga xamante ni moom mooy euh, mooy jëma euh, jël quelques réactions ba léegi Bougane nag wax na wala sinon yëyul yàbbi ci li nga xamante ni moom mooy coow li digganteem ak Ousmane Sonko Ousmane Sonko keroog nu mu ko gaaralee donc ñu nag dañu jéem a xool ñi nga xamante ni voilà ñoom ñoo ànd ak. voilà waa jege bon pourquoi pas ñi nga xamante ni ñoo ñoo ànd ak euh, Bougane Gueye Dany donc ñu continuer waaw ñu continuer moom moo nekk noonu a dégg. sama teeloo ziar bi. Eh, sa xarit mhm. kàddu ngay indi màggal s'il vous plaît waaw màggal gi comme ni nga xam ne waaw comme ki woote màggal gi ni mu ko bëggee mooy ñu ñëw santale ko borom bi dañu ñëw rek juste pour ànd ak ki nga xam ne mooy le président Bougane Gueye Dany pas en tant que militant nag mais en tant que xarit en tant que collègue en tant que nit koo xam ne si ne nii. am na relation bu dox seen diggante ngeen nekk ay nawle ci tànk yooyu la ñëw gunge si ko waaye mbégte rek la nag mbégte képp la amul leneen lu ci doole. sànq laaj nañ ko question boo xamante xaw nañ laal tuuti bi ci keroog Ousmane Sonko bi mu koy gaaral euh, yow ban gis-gis nga am ci. waaw loolu kenn mënu ci waxee fii xam nga waxi politique kenn du ko tontu ci kër goo xam ne seen ni diine lañ fay woote dafa am lu ñu fi indi am lu ñu fi dajale am leneen loo xam ne feneen lañ ko waxee. bu wax joj jotee danañ ko tontoo ji feneen waaye du fii waaye li ci wërte wër rek mooy euh, je pense que ni liñ ci Sénégal yi war a jàpp mooy moytu ndax ku yor nguur yor doole yor lépp su wootee lenn li yow ngay borom xel li la war mooy xalaat lu nekk ci ginnaaw wax ca waaye gën a dolli pas-pasu moytu donc Sénégal yi leen war juste mooy moytu. mais dañoo xaar ci état bu Sénégal ci wàllu assainissement euh, defaraat dëkk bi ci côté ndox bi ndax jàpp nga ne lépp mate na. sant yàlla. Euh, lu leen jiitu la nag bu ñu waxantee dëgg tamit nit kenn du ko sosal kenn du ko waxal lu dul dëgg ñu ngi doog a yegg si bu fekkee ay jéego liñ fi fekk rek la ñu mën a améliorer indi ci seen touche personnelle pour gën a dimbali li nga xam ne moo di population bu Touba ak Sénégal yi fiy daje kon ñi ngi ciy def ay jéego lu ñu mën mooy encourager leen wax ni leen ñi ngi ciy bàyyi xel di leen ñaanal ndam parce que ndam loolu ndamal Sénégal la ñoom ñoo nekk ci bopp réew mi mais mënuñu leen ñaanal échec nañ leen ñaanal ñu am ndam ba noppi li ci topp nag bu ëllëgee fii déwén bu boobaa bu fekkee ne li ñu diggee ak Sénégal yi amul mën nañ leen ci wax ne lii ngeen waxoon ak lii ak lii gisuñu ci li ngeen def waaye fii ñu toll ak ñoom wax dëgg yàlla li ñu ci mën rek mooy ñaanal leen ndam te di ñaanal aussi nit ñi vraiment ñu am xolu muñ te ñaan ñu màggal ci jàmm ak salaam incha allah jërëjëf. Euh, euh, euh, ki nga xamante ni moom mooy Kader bon Bougane dugg na xam naa finalement a xool nu moom mooy direct bi voilà alors Kader bi nga xamante ni la nekk fi nga xamante ni moom mooy Sen yi gis ngeen li am solo li nga xamante ni wax na ko bon bizarrement jéemoon nañu ko poser question en quelque sorte waxi ni moom mooy Bougane Gueye Dany mais bon malheureusement jotul wax donc fii la ñuy li nga xamante ni moom mooy direct bi ci kanam dinañu dem ci yeneen li lieu ba léegi lépp li nga xamante ni dafa ñeel màggal gi incha allahu rabbi dara du leen ci rëcc merci beaucoup jaajëf. jaajëf jël eh Mohamed Mohamed. voilà euh, ki nga xamante ni moom mooy euh, mooy. Euh, jël euh, quelques réactions ba léegi Bougane nag wax na wala sinon euh, yëyul yàbbi ci li nga xamante ni moom mooy coow li euh, digganteem ak Ousmane Sonko Ousmane Sonko keroog nu mu ko gaaralee donc ñu nag dañu jéem a xool ñi nga xamante ni voilà ñoom ñoo ànd ak. voilà ñu jege bon pourquoi pas ñi nga xamante ni ñoo ànd ak Bougane Gueye Dany donc voilà ñu. continuer waaw ñu continuer Bougane Gueye Dany moom moo nekk noonu ñëw sama teddoo ziar bi tey nga ñëw sa xarit mhm. kàddu ngay indi ci mbégte màggal s'il waaw màggal gi comme ni nga xam ne waaw comme ki woote màggal gi ni mu ko bëggee mooy ñu ñëw santale ko borom bi dañu ñëw rek juste pour ànd ak ki nga xam ne mooy le président Bougane Gueye pas en tant que militant nag mais en tant que xarit en tant que collègue en tant que nit koo xam ne seeni nii am na relation bu dox seen diggante ngeen nekk ay nawle ci tànk yooyu la ñëw gunge si ko waaye mbégte rek la nag mbégte képp la amul leneen lu ci doole. sànq laaj nañ ko question boo xamante xaw nañ laal tuuti actualité bi ci keroog Ousmane Sonko bi ñu koy gaaral euh, yow ban gis-gis nga am ci. waa loolu kenn mënu ci waxee fii xam nga waxi politique kenn du ko tontu ci kër goo xam ne seen nii diine lañ fay woote dafa am lu ñu fi indi am lu ñu fi dajale am leneen loo xam ne feneen lañ ko waxee bu wax jot jotee danañ ko tontoo ji feneen waaye du fii waaye li ci wërtu wër rek mooy Euh, je pense que ni liñ ci Sénégal yi war a jàpp mooy moytu ndax ku yor nguur yor doole yor lépp su wootee lenn li yow ngay borom xel li la war mooy xalaat lu nekk ci ginnaaw wax ca waaye gën a dolli pas-pasum moytu donc Sénégal yi leen war juste mooy moytu. mais xaar ci état bu Sénégal ci wàllu assainissement euh, defaraat dëkk bi ci côté ndox bi ndax jàpp na ne lépp mate na. waaw sant yàlla euh, lu leen jiitu la nag bu ñu waxantee dëgg tamit nit kenn du ko sosal kenn du ko waxal lu dul dëgg. ñi ngi doog a yegsi bu fekkee ay jéego liñ fi fekk rek la mën a améliorer indi ci seen touche personnelle pour gën a dimbali li nga xam ne moo di population bu Touba ak Sénégal yi fiy daje kon ñi ngi ciy def ay jéego lu ñu mën mooy encourager leen wax ni leen ñi ngi ciy bàyyi xel di leen ñaanal ndam parce que ndam loolu ndamal Sénégal la ñoom ñoo nekk ci bopp réew mi mais mënuñu leen ñaanal échec nañ leen ñaanal ñu am ndam ba noppi lu ci topp nag bu ëllëgee fii ak déwén boobaa bu fekkee ne li ñu diggee ak Sénégal yi amul mën nañ leen ci wax ne lii ngeen waxoon ak lii ak lii gisuñu ci li ngeen def waaye fii ñu toll ak ñoom wax dëgg yàlla li ñu ci mën rek mooy ñaanal leen ndam te di ñaanal aussi nit ñi vraiment ñu am xolu muñ te ñaan ñu màggal ci jàmm ak salaam incha allah jërëjëf. voilà merci euh, euh, euh, doon jël ki nga xamante ni moom mooy Kader bon bu ko dugg na xam naa finalement Mouhamed dañuy jéem a